bismillah salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waa alxaqu saabi ñu ngi leen di nuyu di leen di siyaare di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal bépp jullit ñu ngi mel ni sëñ xaadim ñëw na ci ligne bi di am kontaante di dalal benn kàngam ci kàngam yi léeg benn dimanche ñu dalal benn kàngam di waxtaane benn sujet boo xam ne ñaare mu nekk actualité li nekk actualité nag tey ci Sénégal mooy mbiru màggal gi Eh, waxtaane woon nañ ko bay passé ak Cheikh Souleymane ma macha allah tay nag ñu war a dalal beneen kàngam muy sëñ eh, Khadim Bousso docteur imam eh, sëñ Khadim ñu ngi lay nuyu di la siyaare bu baax a baax baax di la wax bismillahi ci alxaqu sabit aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu wa magfiratuh sëriñ Pape Ndiaye ñu ngi leen di siyaare di leen nuyu bu baax di nuyu mboolem waa alxaqu sabit di wax nii ñu ngi leen di eh, ñi am mbégte ci jàkkaarloo waat ak yéen incha allahu tabaraka wa taala waaw alhamdulilah sëñ Xaadim ñu lay sant bu baax ci li nga woy si suñu woote ñu war a waxtaane bés bu am solo ci islaam am solo ci e, tariqa murit surtout muy mbiru màggal gi mbiru màggal gi nag mooy cant Euh, ku ñu xéewal muy Cheikh Ahmadou Bamba ridwanullahi taala alayhi muy sant boromam bi nga xam ne moo ko xewal euh, cant googu nag dana koy faral xéewal wala boog xéewal yooyu dana koy faral di tudd ci ay mbindam hmm, mu ne ilaya xaadallahu ma yàkku ni wala yakunu abadan li mumkini yàlla defal na ma loo xam ne nii dootu ko defalati kenn du question na mënut ko wante nag man la ko jagleel du ko defalati kenn xéewal yooyu ma ko defal eh, yan la ba tax mu jàpp bés ne nañ ko koy santale moom xaadimu rasulullahi ridwanullahi taala alayhi bismillahi rahmaani rahim sëriñ Pape waaw sëriñ bi comme niñ ko waxee màggal gi ñu jub muy xéewal gu suñ borom benn jaam ci jaamam yi ku nangoo nekkub jaamam muy Cheikh Ahmadul Xadim Abdullahi wa Xadimu rasulihi yàlla defal ko mu am xéewal gu rëy xéewal ga nag la tax mu rëy mooy ku nekk ba nga daa am xéewal soo demee ba am ko wala nga koy séentu ci ngay sant yàlla waaye moom ba mu demee jëm ca nattu ba gis na mu mettee ak na mu tiitee ak nam fay tumurankee ci tas ay këram ko fu njabootam wan leen ginnaaw génn ab dëkkam booba la sant yàlla ndax xam na ni kon ginnaaw lii la ko suñ boroom jagleel la muy natt boo xam te ni awliyaaw yu baree bari doon nañ ko xaar bëggoon ko yàlla jagleel ko ko moom dafa jàpp ni loolu rek déjà ak xéewal la gu rëy rëy bu koy suñ boroom defal ba na kon mu mu jagleel ko ak sant avant xéewal boobu di ak agsi ndax dañuy suñ borom day wax ni la in la in shakartum la bu ngeen amee xéewal ba sant man yàlla ma waat ci nit naa leen dolli loolu mooy bu xéewal gi ñëwee pare moom nag contraire ba am ba nattu ba ñëwee rek ci la xam ni ma ba'da usrin illa yusur ak jafeel moom su amee rek yombale fi am jafeel mu sant yàlla ci jafeel gi na xam ne ni xéewal dana am waaye sant yàlla ci yombal gi nara am ginnaaw jëfeel gi sant ci yombal gi nar am ginnaaw jëfeel gi sant googu mu sant rek mu teel a yeewu ci sant suñu borom ci mbir moomu day tolloog ilay yaqaad allahu ma lam nii wala yakunu abadan li mumkini ndax moom lañ xam ci ku musa def loolu moom lañ xam ci histoire koo xam te nii da ngaa sant yàlla ci ak lor ndax lañ xamoon ci ak lor ca sharia jàngale ko mooy bu lor amee da ngay wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun moo tax sax yonente bi alayhi salaam am na ñoo xam daan na leen yedd ci loolu comme xadis boobu mu waxee woon ni eh, innama sabru inda sadmatil ula mooy kooku nga xam te ni yonente bi alayhi salaam doon na ko gis muy jooy mu jub ko mun ko ilayka an nii sori ma ba de ba xam ne yonente ba la mu delluwaat ginnaaw yonente bi ni ko ngaa waroon teel a muñ kon muñ lañ xamoon ci am nattu te wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mom nak da def lu ken musta def fofa ndax bi natou bi ñewé da ko jàppe xéewal motax waxut inna lillahi wa inna ilayhi rajiun lool nak daraja rek daraja yi la motax mu am loolé fofa la commencé nak gëm ni kon liko suñu borom defal defalu ko kenn muy ci batin ak ci zahir bu dé ci zahir mom ya xana jëru ñu ci wut ay lay ndax yaatu na xam nañ ko te awliyaaw yëpp nangul nañ ko tamit te xam nañ ni awliya yi fi da jaar yëpp nak fiñ daa jaar euh, xëy na daan na am solo lool waaye nag moom dafa ñëw fexe ba am ngërëmul awliyaaw yi yëpp am ngërëmul wàlli yi daa yombut ndax wàlli yu moom day tege ay natt yu baree bari te natt bu jógewu ci yàlla mu ngi ko daa jafe am gi am ngërëmul yàlla wàlli yu yëpp nag moom lañ xam ci ku musa am moom lañ xam tamit ci ku musa sant yàlla avant muy am xéewal yooyu rek dafa doy sëkk mu ni ilaya qaala allahu ma lam yakuni wala yakunu abadan li mumkini niki noonu it suñ boroom tegoon ko ay natt yoo xam te ni moom rek la ko jagleel bokk na ci natt yooyee bi mu xasee dugg ci nattoom bii sañu te wokkutu sañu am bànneex am yu bari yoo xam te ni sax yu dagan la ci moom waaye daf koo tere woon def ngir ak sàmm koo tere woon boppam ngir ak sàmm yooyu yëpp nag tax suñ borom fayee ko loo xam te ni mosu koo fayeel kenn ndax daa defal suñ borom ay jaamu yàlla yoo xam te ni manees na ni ci moom lañ ko jëkk xamee suñ borom fayé ko nak ay fay yo xamanteni ci mom lañu dëkk gis ko yàlla fayé donte na suñ borom du jéxal dara ndax mom moy ki nga xamanteni te ni indakum yanfadu wa maa indallahi baq la ni sa moom du jéx mukk waye lim ko fayé dal mom lañu xam ci ko xamanteni mom la ko mos fayé ci biir xeetu muhammad wi alayhi salatu wa salam lool nak imtinan la te mawdi'u imtinan nak bo ci nekké da ngay wax la yàlla xéewale jàpp ni yow rek la ko defal ndax lool ci ak sant la bokk ndax saa yoo jàppee ni yàlla li la defal ci xéwal yow rek yaa ko am kooku suñu borom day gën a bëgg ci yow keneen mën naa jàpp loola waaye yow soo jàppee loola suñu borom day gën a bëgg ci yow. jërëjëf sëñ Xaadim macha allah eh, beneen laaj bi dañuy njëkkalanteeg temps bi mooy ne sëñ bi dafa bari ay jaar jaar ay place yu mu jaar dëkk yu mu jaar ay giir yu mu jaar ay gàdd yu mu gaa jaar bu koy tudd léegi ci ay mbindam bokk na ca fi ñuy wax Sarsara. إن الذين إلى صرصار قد قصدوا سيارتي فارقوا ديريني أو زارا صرصار من فن لنك مغيتو دبيتو دأي دايمان أكلان موفخون إكسابتما بسم الله الرحمن الرحيم سرين باب نيلي زياريوات سرين بي تدونا يباري تيفم جار مبوخزيكم نينكو وحي صرصار صرصار نك أبدك لبو نكي كموريتاني mbokk yu bari dañ fay dem di ko ziyaare ji banu daymaan tamit fa lañ ko fekkoon muy aw xeet wala aw askan wu ñu xam ci ak mbaax ak yiw ñuy ay surafa barab la bu naqari woon dem nag barab bu naqaree dem la yoon wi metti lool moo tax sax ba fa sëriñ bi demee ma ngi fa dem ci weeru rajab tolloo mille trois cent vingt et un ci la fa sëriñ bi demoon ba mu fa demee sax ña ko fa doon fekk dafa sartoon ci ñoom ñu nekk ñoo xam bu ko fa ko mokkul alxuraan fekk ña ko fa fekk ñëpp nañ nekk ay xofaasul quraan nañ mokkal alxuraan karim waaye nañ nekk ñu am kattan ndax ku néew kattan bu fa ñëwee mën naa am jafe loolu nag lu yéeme doon ndax sëriñ bi ci boppam borom kattan lu néew la woon ku néewoon kattan la ci zahir kon bu sartantee ni kon ñi ko fay fekk nañ nekk ñu am kattan loolu day feeñal yërmande gum yëram xeet wi ak taalibe yi di di fedd li tamit njàmbaare gum njàmbaare ndax lam mënal boppam jàpp nañu sax lim néew kattan ña tolloo moom ab dayoo ci kattan mënuñ ko woon waaye da ngay seetluwaat tamit ni ñoo faan fekk da doon sàkk ñoom kattan waaye am na ci ñoo xam boo leen xoolee ci zahir dañuy nuru ñu néew kattan waaye ñu amoon kattan lañ ci kattanu biir ndax ne kattanu biir la la sartante woon lii firndeel loolu nag mooy xam ngeen mi bàyyi woon na maam Cerno foofa euh, ca Tuubaa ngir muy ngir muy ixtibaar muy examen ñu bëgg a dem ku bëgg a dem mu xool la ba xam war ngaa mën a dem am déet ci mokkalu alxuraan ak ci sa kàttan dëgg-dëgg ak sa mbir pas-pas fu mu toll ndax borom pas-pas bu dëgëru bu fa demee mën naa am jafe-jafe suñ Modou Lo Dagana waxuma nag euh, suñ Modou Lo Dagana suñ Modou Lo Dagana ci boppam waxuma suñ Mouhamed Lamine Diop Dagana suñ Modou Lo Dagana ñu bari dañ koy jaawale moom moom bokkoon na ca loolu moo ko yóbbu woon Dagana bañ koy wax a addagaani suñ Modou Lo addagaani momit fofu la nekkon ngir tamit di ixtibaar ne ñëw dagana xam ngeen ab dëkk la bo xam tane ci wetu Mauritanie la nekk lolu moo tax ñu def suñu mudloo dagana daymaani yu ni fa lañ ko fekkon tamit fa la def qasida gi di hamdi wa shukri liman kulli bihi zara lahu ridan duna sukhtin inda sarsara لله kulli لدى آبار مكرمة من هرتحلنا وفيها من هرتحلنا فيها جم من زاره inna alladina ila sarsara ila sarsara qad qasalu siyaarati faaraxu daarayni aw zaara fa la waxe loolu kon mu xamle ni moom daal mi ngi sant yàlla bu baax cant gu amul fu mu yem ndax léppam yàlla def na ko mu jëm ci moom ndax lam sàkk woon suñu borom lépp defal na ko ndax jotaay bi mu nga xam te ni moom la bëggoon suñu borom defal ko ca sarsaara daymaan yun yëpp fa lañ ko fekkoon doon jaayante moom ànd ak moom ci liggéey bi nangul ko ak wilaayaam te ñuy ay naar yu weextaan la wax ci bayit yooyu ma wax yu bari yoo xam te ni ko diglu da ci xam lañ ca wax nee na bu àggee foofa ca la ko yàlla defale tawféex yu baree bari kon Sarsara ab dëkk la bu nekk ca Mauritanie sëñ bi ma ngi fa dugg mille trois cent vingt un ci gaa mille trois cent ci weeru rajab ca la fa dugg dëkk bu naqari woon dem comme ni ma ko waxee woon waaye dëkk bu metti woon tamit sëñ bi dem fa ngir mën a liggéeyal boroomam tamit rek ak dem gis awliyaaw ya ginnaaw bañ ko sàkkoo ci moom tamit waaw jërëjëf macha allah sëñ Xaadim suñu ñetteeli laaj mooy ci place yi nga xam ne dana koy tudd bokk na ca fi ñuy wax jeewal ayesa minillahu inda jeewali iblisa isnaadaytahu bi yaa wali sëñ Moussa Ka baamu ko na inna walil illahu ba ca laaya ja la daam fanaanee ba sa saalihiina ja waaw jeewal moom ban nattoo ko fa daloon ba muy jël kënu gu tool ni sirru yaawali di ko di ko ñaan foofu ak fan la jeewal nekk ok sëriñ Paap euh, jeewal dañ koy wax tund jeewal barab la boo xam te nii bi sëriñ bi génnee euh, bi sëriñ bi génnee rek mooy barab bi mu njëkk jaar mooy barab bi mu njëkk jaar xasida gam fa taarif tamit bokk na ca ayasa minnillahu inda jeewali iblisa isnadaytuhu biyaawali eh, mu tënk ko ci eh, laaya ja suñu borom di wax ni inna ibadi laysa laka alayhim sultaan waaw ko suñu bi tënk mu mel ni kon jeewal mooy barab bi sëñ bi njëkk jaar ginnaaw bi mu génnee ndax sëñ bi mi ngi dëkkoon Mbàkke Baari mu génnee Mbàkke Baari nag jeewal la njëkk jaar xam ngeen ni fa la dajeeg Leclerc moom la tubaab bi yónni woon ngir mu jël si sëñ bi Leclerc moomu te ñu tuddee ko moom la tubaab bi yónni woon moom la gouverneur yónni woon ngir mu jël si sëñ bi bi sëñ bi génnee Mbàkke Baari nag moom la dajeel ngir mu koy jël si foofa nag mën nañ ni sëñ bi am na fa cong congu biir am fa congug biti congug biir gi mooy bi ko iblis songoyee bi ko seytaane songee tam doon wérd jamono yooya baatu inna waliyallahu allazi nazala kitaaba huwa yatawalla salihin loolu si doon wérd moom la woon wér li mu wérd ba nag daanaka kenn jàpp ko ndax bari woon na loolu mu ko woon ci suba ak ngoon waxtu yëpp moom la doon wérd comme ni ko Cheikh Mouhamed Lamine Diop Dagana waxee ci al irwa Eh, loo foofu nag eh, songu biir gi mooy di ko iblis songee sëñ bi daaneel ko sëñ bi daaneel ko naaguloo ko ci sëñ bi moom iblis ayasa minnillahu inda jeewali iblisa is naadaytuhoo bi yaawali nee na bi may wérdi yaawali daal ak aaya bii ma doon wérdi tax na iblis naagu ci man xam ni mënatu dara ci man Euh, ni ki noonu songu biti gi mooy tubaab bi foofoo la ko njëkk a songe maanaam fa la ko lekk jële sëñ bi sax dana nettali foofu daal di wax naan foofu laa njëkk a songoog ñoom te ñaari ñaari ñaari mbër de buñ songoo buñ roofantee ay loxo kenn ku nekk da xam kala kenn ki man dana xam ni maa man kiñ man dana xam ni moo man waaye nag buñ xasee songoo moom rocci loxo day weesu nee na tubaab bi foofu la njëkk xamee ni sëñ bee ko man waaye nag rocci loxo moo weesu woon rocci loxo moo weesu woon foofa la jógee nag daay jëm ndar ba mu fa jógee ndar la ci teg muy tolloog dix-huit safar dix-huit safar eh, Sarsara tamit li ma ci bëggoon a rek eh, fala ko sëñ fala ko fala ko sam feeñoo jox ko al wirdul maxuuz minallahi taala bi wasiti rasulihi ci bisub ajjuma di vingt-sept ramadan dama ko fàttee wax ci laaj bu njëkk bi euh, wérd boo xam te ni kenn ci awliyaaw yi mosu cee yàlla sëriñ bi rek ci njëkk jaamu yàlla bi ko jotee li mu leen wax mooy xuzoohu bi quwwatin xuzoohu bi quwwatin jël leen ko ak doole jël leen ko ak doole daal di koy yónnee bindu lu ko yónnee ko suñu Mor Jaara ak sëriñ Mbàkke Buso ca euh, Tuubaa euh, daal di continuer ña fa nekkoon ñëpp mu jox leen ko dig leen ci ay dig yu baree baree bari kon daal loolu moo xew ci Sarsara ci mottali gi lii ma la wax tey moo xew ci jeewal euh, Serigne Pape. macha allah jërëjëf euh, sëñ Xaadim bon euh, waxtaanal nga ñu Sarsara waxtaanal nga ñu jeewal wax nga ñu cant gi waral sëñ bi lii sëñ bi def cant gi léegi nag ñu ñëw ci njaboot gi kenn koo ci jël rek dana baax waaye. boo ñu jëlee jëlalee sëñ Suwaybu Mbàkke bokk ci njabootam nga waxtaanal tuuti ci xam-xamam ak sàmmoom ak yi nga xam ne taxawe taxawee na ko ñëpp gis ko boo ñu ko waxtaanee daal ñu neex ci bés bi. Euh, bismillahi rahmaani rahim Serigne Pape euh, Serigne Souhaïbou comme ni nga ko waxee kenn la ci njabootu Cheikhul Khadim radiyallahu taala anhu wa nafana barakaatihi mu bokk ak Serigne Abdou Lahad wenn waajur wu jigéen euh, muy nit ku sàmm woon nit ku ragaloon yàlla nit ku baaxoon lool ci ak teel ndax ci ak njëkk njëlbeenam rek li tax mu dëkk alxuraan mooy bi nga xamante ne nii mi ngi jàng alxuraan karim ndi jaayam xam Serigne Xamsatu Jaxate jël ko ànd ak moom dem seeti sëriñ bi ca njaareem booba sax nam fekke Serigne bi doy waar lool sel yeeg lépp di dox ci yaramam muy xool sëñ bi xool di ko xool lool sëñ bi jekki-jekki ni ko yi bu boo toogatee deel jublu penku waaye li jiitu lool sa bi mu agsee sëñ bi dafa laaj ni ko yi bu foo toll bi ko laajee lool suñu am daal di koy feelu ndax booba ci zahir ndaw la te sëñ bi ku wane xam-xam ci kanamam da koy fàtte loolu bokk na ci li yi ko yàlla mayoon ku wedd na laaj euh, sultaanul arifin moom ñëwee ci sëñ bi di jaay xam-xam da ko fàtte loolu yàlla ko mayoon eh, bi mu ko waxee loolu suñ suñ am selu jaxate ni yaayam ni ko moom de mi ngi góorgóorlu léegi mu wattu sëriñ bi daal ni ko daal di koy ci loxo mi tedd ya bi mu ko attaayaale par ni ko ndax chong bu xam nga lu tax ma defal la lii damaa bëgg bu ëllëgee nga xam ni ñooñu alxuraan dañ leen a war a teral ñooñu alxuraan dañ leen a war a teral moo tax suñu chong bu féete woon alxuraan di jàngal dongo yi bis bu set moo leen di yee bu tëdd jotee moo leen di sàng moo leen di taxaw moo leen di defal lépp mu nekkoon nag ci jitaay boobu sëñ bi jàngal ko fa lu bëree bëri ndax euh, fixé na sëñ bi di ko xool di ko xool lool ndax rek di ko jaaxal mooy suñu am satu jaxate mii mu àndalkat moo nekkoon ki gën a rëy ci moom mu gis nag ni suñu am satu doxale ak sëñ bi ci ak toroxlu ak tuuti boppam mbir moomu jaaxal ko lool ak ni sëñ bi mel ak xayba bi ak jëmm ji ak yi koy dox ci kawam te du ko wokk du dara mu koy xool ba sëñ bi xool ko ni ko son yi bu boo toogatee dee jublu penku moo tax mosoo ko fekk mu toog mukk te jubluwul penku ki noonu it yàlla defoon ko mu nekk ku sàmm woon ku ragal yàlla ragal yàlla gi bokk na ci eh, kilifa nett na ma ni am na benn bis mu ànd ak moom di dox ba mu yàgg mu yem ci am picc picc moo xam te ni dafa dafa dafa dafa dafa dee ba médd nekk ci naaj wi nee na son yi bu daal jël picc mi fëgg ko ba mu set mu teg ko ci ker gi daal di koy muwaaraat daal di koy suturaal ci suuf si nee na mu ne ko ah, loo jublu ci lii mu ne ko xanaa bu ëllëgee rek si Allahu ko loo jublu ci lii mu ko xanaa bu ëllëgee rek suñu borom suturaal ma te yërëm ma xanaa bu ëllëgee rek suñu borom suturaal ma te yërëm ma mu nekkoon jëmm joo xam te ni jëmm ju ragal yàlla la woon jëmm ju baax la woon jëmm ju tedd la woon doo ko gis mukk te sorut lu weex waaye jëmm ju siwliise la woon set wicci waaye jëmm ju amoon firaasa jëmm ju amoon firaasa moo tax firaasa boobu moo taxoon sax bu musaa xëy day laylu kër gi bale ko set laylu ko su ko layee ba pare dongo yi bépp dongo bu jàll bu ñëwee bu xoolee tànk yi dana xam ni dongo sàngam moo fi jaar bëggoon loolu tamit kuy istixaal koo xam te ni foo toll yaa ngi def dara bëggul woon kuy def loxo yi neen foo toll da yorub téere di jàng mbaa ngay bind mbaa ngay nafar mbaa ngay def neen loo xam te ni ci lislaam la jëm waaye nekkoon koo xam te ni ku dëdd woon àddina la li muy set set ak li muy siwlise siwlise nga xam ne am na xeetu yére boo xam te ni suñu changé bu lañ ko tuddee xam ne moo ko daggoon di ko ñawlu nga xam yére bi boo ko yoree ngay mën def kaamil sa poos te noo ko bëgg génnee génne muy poos dënn boobu waaye teewul nag ko dëdd woon àddina la musta bëgg télé nekk këram télé musta nekk këram rajo musta nekk këram tamit wax nañ mi sax buñ ko mosee indi rajo da koo dëbbu da koo daay dëbbu kon ragal yàlla moom jéggi woon na dayoo photo yi musta nangu ko foto benn photo la maye woon yeneen photo yi ñu ko mos a photo tamit day lakk dawut jàpp mu nekkoon wàllu yu yàlla bu mat sëkk firnde ji mooy bisub bisub bisub bisub juróomi fan ci weeru koor Euh, astaghfirullah bis maam ci koor la fi koor la fi jóge koor la feeñ ci àddina tamit koor la fi jóge ko koor la feeñ ci àddina ci weeru koor waaye weeru koor tamit ci bisu ajjuma la fi bàyyi ko guddik ajjuma dëppoog laylatul xadar te màggal laylatul xadar gi ba fajar gi mm, suñ maam Balla bu suñu bàyyi la mu yónni ko ba mu demee ba mu demee ba mu dikkaatee la fekk mu yor kurus gi la fekk mu bàyyi koo fi xam ci fajaru ajjuma ci bisub laylatul xadr fo la fi bàyyi ko loolu nag lu rëy rëy loo xam te ne am na lu muy wane muy borom xam-xam bu mat sëkk nag boo xam te ni jàng na mboolem xeeti xam-xam yi jàng yépp jàng na ko euh, Serigne bu so mi nga xam te ni mooy waajur ci sama yaay moo jur sama yaay bi sama yaay moo ko jàngal lu ëpp ci xam-xam jàngal ko lu baree bari ci xam-xam mu nekkoon ku géeju ci xeeti xam-xam yu bari taarif ay téere yu bari it bokk na ci xoratul ayn bokk na ci bokk na bokk na ci naylul awtaar yooyu yëpp ay téere la yoo xam moo ko taalif ngir jàngale diine ngir jàngale tamit xam-xam nekkoon lool tamit ko xam ko amoon relation la ak Serigne Adi Touré xamante woon ak moom xaritoo woon ak moom lool ak mboolem ñi nga xam ñoo fi nekkoon ci tarixa yi tamit mu nekk siqoon ak ñoom jàmm ak euh, relation yi rafet rafet rafet. macha allah jërëjëf sëñ Xaadim eh, sëñ Chouaïbou ñun yàgg nañoo dégg ku sàmmoon la comme ni ko jël ba. Eh, rongañ tuuru macha allah eh, yal na yàlla yokk leeram yal na yàlla barkeel gannaawam barkeel kanam macha allah am na solo eh, suñ beneen laaj bi mooy ci ñi nga xam ne ay kàngam lañu ñu nekkoon ci wetu sëñ bi ñu tànn ci kenn rek di sëñ Mbàkke Buso nga waxtaan ak mooy tamit ci xam-xamam ak ci ngëmam ak ci ay taalifam xam nañ ne poète la bu raffiné Eh, bi Cheikh alaaji Abdoulahi Niass faatoo ak alaaji Malick def na fa xasida boo xam ne eh, mboolem doomu daar yi ñoo ko mokkal muy samsun wa samsun ama samsin xaabata fa bakkan warali takkatu kan mooy sëriñ Mbàkke Buso ñi ngi nuyu sëñ Fàllu Buso mi nga xam ne ku bokk ci njaboot googu la daan ñëw fii di sama wala rek maa ko nuyu bu baax a baax Euh, suñ Mbàkke Buso day xam naa sax daawuma ci faral di waxtaan ndax nit boo ko jegee nga waxtaan ci moom du yomb waaye daal nit ku yéeme la woon ci ragal yàlla ak ci xam-xam nit ku yéeme la woon ci ragal yàlla ak ci xam-xam ak ci sàmm preuve bi rek mooy mbooleem njabootu Sëriñ Tuubaa gi ngi ci ëpp ci ay loxoom jaar nañ ci ngir mu jàngal leen xam-xam ki ci gën a siiw mooy sëriñ Abdul Xaadir moo tax mu seedee loon ko seede su rëy soo sa daal musuma gerte ci sàppe te gisuma Abdul Xaadir sama ginnaaw niki noonu it e, ci xam-xamam ñëpp seedeel ko ko bayit yooyu nga ci wax shamsun wa shamsun ama shamsin xaabata fa bakal waraay dakaasu allah mi e, nga xam te ni mooy bi alay Seyd Aj bàyyi koo fi ak sëriñ Abdoulaye Niass maam Abdoulaye Niass ci la woon way yooyu Euh, suñ mbàkkee nag seede si ma ciy njëkk joxe rek mooy seede si Seydi Aj def ci moom waaye ma njëkk a leeral la waral seede si ndax daa am dëkk bu ñuy wax ka ca wetu ci waaw ca wetu ci waawoon bi sëriñ bi di may ci géej gi suñ mbàkkee dafa daa dem di fa dajeeg ak Seydi Aj ñuy waxtaan ci xam-xam lam xam ci moom foofu nag lam gis ci moom ci xam-xam moo tax mu seede ni bu fekkoon du dara lurul sëriñ Mbàkke Buso mi topp suñ Tuubaa rek ma xam ne suñ Tuubaa ndeke li mu nekk mooy la wér te moo baax loolu moo ko seere ci moom kon mu nekkoon boroom xam-xam boo xam te nii xam-xamam moom jéggi dayoo gi ëpp na ndax mbooleem murtani yi ak naar yi maanaam seede nañ ko ci moom Sëriñ Tuubaa ci boppam sax seede woon na ko ci moom ndax nee na ko woon bu ma wayeti dimbali ma bu ma wayeti Sëriñ Tuubaa yi way na ko usika yabna ammati wa xaali wa fusta bil ixraaji wal idxaali mooy xasida boobu mu koy way di ko ci tañ di ko ci dénk naan ko maa ngi lay dénk yow sama doomu nijaay ak sama doomu bajjan ndax soxna Faati Balla mi jur suñ Mbàkke Buso mam Balla Aysan mi jur Maam Mor Anta Sali mi jur Sëriñ Tuubaa moo ko jur xam soxna Faati Balla bajjan na ci Sëriñ tubaa waaye Sëriñ Buso bi mi jur suñ Mbàkke Buso tamit moom it mook soxna jaariyatullahi mi jur sëñ Tuubaa ñoo bokk ndey ak baay nga xam ne kon dañoo bokk ci waajuru góor bokk ci waajuru jigéen moo tax mu ni ko bu ma wayeeti ndax soo ma wayee xam ma te bëgguma ma kenn xam ma lool la ko mujjoon wax ba ko waxee ni ko huwal xawsu wal miryaasu rabba qulubana wa ajsamana fal kullu saafin wa naimu waaw la ko suñ Mbàkke waxoon suñ Tuubaa ni ko woon fa minni ila man maala qalbi li luqyaahu xalili anisi man radina sajaayahu Sëñ Mbàkke la ni ko moom mooy xawsu bi mooy xettalee moo yar suñuy xol ak suñuy yaram ba lépp nooy Sëñ Tuubaa ni ko eh, fa minni ila man maala qalbi li luqyaahu wax jii de mi ngi jógee ci man tagg gi mi ngi jógee ci man jëm ci ki nga xam te ne sa xol de moom rek la ba gis moom rek la bëgg di nekkal mooy sama wéttal xalil yi mooy sama xarit anis yi mooy sama wéttal man radina sadia yaaw te gërëm nañ ay jëfam moom gërëm nañ léppam loolu sëñ bi seede woon ci moom muy boroom xam-xam boo xam te nii lépp lu musaa ñëw jëm suñ Tuubaa ci ay fatawa ak ay laaj moo xam ci naar yi la jógee moo xam dafa jóge ci yeneen gox yi moom la koy joxaat mu tontu ko doy na ci misaal laaj boobu ko Cheikh Ibrahim Niass doon laaj ci aw askanam mu leeral ko ko ak seede yam seede ci moom mu nekkoon koo xam ni daal wax dëgg yàlla xam-xamam jéggi woon na dayoo lool booy liir ay téeréem sax booy liir téere boobu ci docteur Khadim Mbacke xabidahullah bind muy min rasaili cheikh Mouhamadul Bousso bi al mashhur bi alxaaji Mbacke Bousso boo koy liir ba gis fatwa yi ni muy nekkee fatwa muasira da ngay yéemuwaat ci yàlla ci nim ciy tontoo ak fiqhu fiqhul rakk bi ak fiqhul fiqhu tasaayur bi mu am ak fiqhul waaqix bi mu am ak nim déggé manam al waaqix ak fiqhul mustafti nimi xamé ki laaj liko tax di laaj ak li mu bëgg laaj lu doon nga xam ñaare sax dafa lay léral laaj bi doog la tontu da nga yému wat ci xam-xamam xam-xamam bu bari xam-xam bo wax deug yàlla mo nek lo xam dañu ni jaaxal na ñu bare bari ba tay ji te lépp nak ci ak ragal yàlla ak sàmm wax nañ ni bokku na ci li wax na ni bokk na ci li ma gën a rëcc bi ma demee ba doon mag dëgg-dëgg muy ñàkk a xéewlu bu baax ndax tax na ba naafila yi ma toggoo woon di ko defal di ko def di ko def ngir suñ boroom bi ma màggatee mënatuma ko woon ndax ñàkk a xéewlu lu bari ndax euh, sëñ bee ko tarbie ci tarbie boo xam te ni daawul lekk daanaka daawul lekk daanaka kon yaakaar naa xam-xamam jege na dayoo diggante ma sëriñ bi euh, doy na ci tëkk ni moom moo jullee sëriñ Tuubaa bi mu fi bàyyi ko bi fi sëñ bi bàyyi ko moom la batal ni na ma jullee na ma miiraas na ma defal lépp moom moo wane barab bi nga koy denc ñu génne xàmmikaay ga fa sëñ bi defoon moo ko jullee moo ko miiraas moo ko taxaw lépp lu ñuy defar ko fi bàyyi rek moo ko defal Cheikhul Khadim bi fi bàyyikoo wax nañ ni bi mu koy bi ñu koy defar ba fajar jot nit ñëpp xoolante dafa wax ni jëmm jii de jàngaloon na ma ni ma lépp looy def ba julli jot nañ ko bàyyi te dem julli ji ñu daal di fay bàyyi sëñ bi dem julli ji ñëwaat àggale li ñuy def ñu pare mu dénk mbooloo mi waar leen am na ci mag ñi koo xam ni sax biñ demee bay dugal sëñ bi dafa xaw a am nu mu def saalit suñ mbàkkee ni ko bis bii moo taxoon ñu la yar mu daal ni cel continué waat kon daal ku yéeme la woon koo xam te ni ku ragal yàlla la woon ku bari woon xam-xam la woon ku sàmm woon la tey ku daa weddi munkar la fu mu musaa gise lu noonu dana ko weddi ndax bi muy jiite ci am na boo xam te ni mooy xutbaam bu siiw booba mu defoon te cay wax naan laa arda wala arda xatta tarda yàlla du ma gërëm mukk da ngaa gërëm te moom génnee ci xutba ba am xew-xew yu bari ci xewoon ba am sax ñu ko doon sànni ay xeer mu doon wax naan wala wala ubali bima sa sa yurma ilayya min al ahjar xeer yi may sànni du teema wax dëgg diñ jàppee maam Cheikh Anta tamit moo def lettre bu yéeme booba def lisanul xaqi yatakallam muy lettre bu am solo bu yeme yeme jërëjëf euh, sëñ Xaadim macha allah beneen laaj bi mooy xalifa bi nga xam ne moo fi nekk actuellement muy sañ Muntaxa yal na ko yàlla sàmm bàyyi ko fi ci kanam euh, jullit yi ku gis nañ ne góor la goo xam ne góor yàlla la gu xam ne lislaam rek ko ñor liggéeyal euh, sëñ bi rek moo ko ñor ci côté xam-xam gis nañ ne ku ci faral di sonn la ku fonk boroom xam-xam yi la yan mooy euh, procès walla ay liggéey walla ay muwaasafaat yi nga xam ne xalifa bi am na ko nga leeral lañu ko bismillaahi rahmaani rahiim sëriñ Faat ñu lay nuyuwaat waaw sëriñ Muntaqa xafidahullah waraahu euh, moom tamit damay faral di war rek comme li wax suñu mbàkk bi sànq bu fekkoon du jëmmam ju tedd ji damay wax ni matuma seede ci moom ndax day sama xarit di sama baay bëgg ma lool tamit man it ma bëgg ko lool ba uma sago ci moom muy nit ku bari ay qualité te qualité yi nekkul te sannoox ci moom nekkul loo xam te ni da ko da ko da ko liggéey ci jëmmam waaye qualité yi dafa nekk nature ci moom qualité yi dafa nekk nature ci moom euh, firnde ji rek mooy avant muy nekk xalifa ni mu doon doxee ak bi mu nekkee xalifa ni muy doxee amul benn différence tarfatu ayn muy oyof gi ak baax gi ak ittewoo gum ittewoo doomu aadama boo fa demoon tey bu la xamee bu la xamut daana jox itte yoo xam te nii yow da nga ni sax kii est-ce que du man dong la xam te loolu nag mooy sunna si yonente bi alayhi salaam ndax Amru ibn al-As nee na ci wetu yonente bi alayhi salaam mu may xool bëti yërmande ak bëti mbëggeel ba ma jàpp ni man la gën a bëgg ma ne ko man ahabu naasi ilayka ya rasulallah nee na ma ma ne ko suma man ma suma abuha ma ne ko suma man nee na mu lim fukki nit doog maa tudd nee ci laa xamee nag ndekete kon ñëpp yam ci moom sëriñ Muntaxa noonu la mel nit ku bëri yërmande nit ku baax nit ku bëgg diine nit ku bëri ay qualité ay muwasafaat ay option comme ni nga ko waxee waaye bokk na ci li gën a rëy ci ay option ñaari mbir muy pas-pas bu dëgër pas-pas bu dëgër jëm ci ak mbaax te dëpp jëm ci ak mbaax te dëpp waaye loolu lépp nag mu jiitu ko xam-xam bu géeju géeju ci xam-xam lool ndax xam ngeen ni moom ñoom suñ sàmba yi la defoon ay nawle ñoom la daa àndal ñoom la daa waxtaan ñoom la daa siqal lim daa di siq lépp ci xam-xam mu nekkoon koo xam mu nekk koo xam te ni xam-xam la bëgg lool avant muy nekk xalifa xamoon nañ ko jotaay yum daa am ak borom xam-xam yi man bokk naa ci ñi nga xamante te ne ni seetlu naa ni bokk na ci ñi njëkk am ay maktabaat ilmiya ci biir Touba dafa dafa dafa farata la woon ci moom moom mu am maktaba boo xam maktaba ilmiya waqfiya la ko def nga xam te da ko ubbi pour ñëpp ku bëgg a liir dem liir dem jàng loo bëgg a xam dem xam ko fa ci maktaba boo xam dafa jënd téere yi ci xaalisu boppam te booba kat du ab xalifa wala boog du xalifa sëriñ Tuuba kon xam-xam mu teel koo bëgg jigee boroom xam-xam yi lool fonk leen lool bëgg leen lool bàyyi leen xel lool tamit ba taxoon na at mu jot am na bis bu leen jagleel boo xam te ni ba léegi ci xilaafa gi sax da koy def wéet ak ñoom waxtaan ak ñoom waaye vision vision bi mu am tamit nekk vision bu bu bu bu yéeme muy discours am ba mu waxoon ni dama bëgg Touba mel ni Bagdad ak kuufa ak euh, ak Madinatu Munawwara xam nga loolu vision gënu ko rëy ndax kon da nga dégg ñaari mbir lañ ciy njëkk a dégg mooy sëñ bi ku documenté wala ku xam ku am culture la ndax ku xam Bagdad xam boroom xam-xam yi fa nekkoon xam ñoom Abu Hanifa da ca Kufa nga xam Madinatu Munawwara xam Malik ibnu Anas xam saxaaba ya fa nekkoon xam boroom xam-xam ya fa nekkoon ci waa Madina xam xijaas euh, xam al imaamu Shafii ca Makka yooyu yëpp nga xam ko di nga xam bu waxee ni dafa bëgg Tuubaa mel noona vision bi mu am ci loolu kon di nga xam mooy lan waaye taxawut ci loolu ci di ko théorie waaye mu pratiquer ko fexe ba la sëñ Mbàkke bu sa waxoon bi sëñ Tuubaa jógee ni sëñ Tuubaa de nee na ma woon ñetti mbir képp la motulee ko te bëgg nañ motule ko bi ci njëkk mooy aj gi ñaareel bi mooy euh, ñaareel bi mooy lil Moustapha lii banal xuddoos madrasan di hayazul aza wal jahlul kamal muy école bii nga xam te ni suñ Muntaxa mi ngi koy taxawal tey mi ngi koy taxawal tey muy école boo xam te ni penku ak sow la sëñ bi waxoon dinañ fi ñëw yi fi jàngatee nga xam ne kon loolu boo ko déggee da nga naan waaye école lay doon kon université lay doon ndax université moo mel loola la loola mooy lii li xew ci mbir mi kon kon loola nag man li ma ko bokk na ci li ma ko gën a nawee muy dafa ñëw xool la ay magam ak i waajuram nekkoon mu xool lay taxawal loola nag dëgg-dëgg mu ne ca ndax juma am na solo lool na am baax na lool rawatina jumaa ji wala jumaa yi sëñ Tuubaa jumaa ji dañ fi ña ngi fay jàng xam-xam dafa jaamu yàlla waaye mu fexe ba tabax loo xam ne dana mën a tabax ay imaam yu baree baree bare bu ëllëgee ñu mën a taxawee jumaa ji tabax loo xam ne dana ma a tabax ay borom xam-xam yu bari yoo xam bu ëllëgee dañ mën a tabaxawal jumaa ji léegi nii rek ma dëggu 30 minutes laay jokkoo Serigne Ahmadou Badawi mi yor liggéey université bi ma ma ñu ngi nii di fa dem naa ma yaakaar na ne njàng mi dana commencé balaa yàgg balaa yàgg njàng mi dana commencé kon loolu uh, tawféex la boo xam te ni yàlla moo ko mottali ci loxoom yàlla na ko yàlla mayaat mu benn fee yàgg ba naal yi mu yéene yëpp mu àggale ko sëñ Pape. waaw uh, jërëjëf uh, sëñ Xaadim am na lu junj maam Cheikh Anta dañ ko jàppoon ku ko jàppoon tubaab bi. Eh, kañ la ko jàppoon boobu sëñ Touba mu ngi eh, ñu ngi ko yóbbu jàpp yóbbu moo desoon fi eh, temps boobu lañ ko jàpp wala gannaaw bu sëñ Touba dellu suet la lañ ko jàppoon ak lu taxoon ñu jàpp ko. waaw kay sëriñ Pape waaw jàpp maam Cheikh Anta ginnaaw sëriñ bi la ginnaaw sëriñ bi la am ci jamonoy xilaaf ak maam Cheikh Anta ci astafurlah ci jamonoy xilaaf ak Cheikh Moustapha al Karim si Modou Moustapha mi taawu sëñ Touba ci jamono yooyu la jàpp gi amoon. ci jamono yooyu kon ginnaaw sëriñ bi lañ ko jàppoon kon te séegu waaye du ci nekkuk sëriñ bi li taxoon ñu jàpp ko nag bari na ay ay riwaayaat waaye daal riwaaye bi ci mën a wax daal mooy ak tooñ rek ak tooñ tooñu tubaab bi daal weesuwu ko ak tamit xëy na boroom teraanga la amoon na alal lool te tubaab bi bëggul woon dara ci dax wab suñ biir muy muy muy muy muy continuer te jàpp nañ ne xëy na kiikat comme yàlla may na ko teraanga te ñoom jàpp nañu ni daxawa moom ci xaalis rek la mën a amee ñu nañ ko fexeel pour jàpp ko loolu laa ci mën a wax ci asbaab yi nga xam te ni yuñ mën a wax lay doon waaye ala kulli xaal daal noonu tubaab bi rek moo ko waraloon. macha allah jërëjëf euh, sëñ Xaadim taala euh, zulmul insaani lil insaani doomu aadama yàgg naa tooñ doomu aadama euh, bon ñu comme ci. mbiru sëñ bi la wax euh, daara ñu dugal fi benn laaju fiq boo xam ne euh, Souleymane Bayane moo ko fi booyaloon euh, ci sasam la bokkoon waaye moo ko fi bàyyi woon léegi nag ñu jox la ko yow mooy ne lan mooy àtteeb ku njaalo ku sangewu ku góor walla ku jigéen ci li ci alquran lu mu ko waxee lan la ci ban àtte la ci jox joxe bismillahi rahmaani rahim sëñ Pape ñu ngi lay ziyaarewaat bu baax tamit la nuyu waaw suñ Souleymane Badiane de ndeysaan borom xam-xam la boo xam ni uttufiqa ala fiqhihi wa adabihi wa ilmihi kuñ dëppoo ci ak fiqam ak ak tegginam ak xam-xamam tamit ak quwatu uh, idrakihi wa xifdihi macha allah yàlla ko yàlla sàmm naa xëy na ak ñàkk jot lay doon wala ak jotadi waaye uh, moom yaakaar naa bu ci tontu woon dana lay sëkk dana mat sëkk uh, moo raw foofu moo ñu raw foofu li ñu njëkk wax mooy lan mooy ihsaan ihsaan mooy sengawu sengawu mooy nit ki am soxna tey boroomum xel nekk mu kàllaf am soxna ñu may ko ko ci fas gu wér bam siq ak moom def li ñuy wax ilaaj ilaaj mooy mu jël awraam dugal ko ci pëyum ku jigéen ki ki nga xam day soxna am su boobaa bu loolu xasee am te lii may wax lépp am ci su njaaloowaatee ab atteem day wuute ak atte bañ waxoon muy dóor téeméeri yar wala juróom fukki yar bu fekkee ab jaam la walla dóor téeméeri yar dàq ko ci dëkk bi am at ci lenn ci riwaayaat yi loola mooy loolu lay doon boobaa euh, xëy na nag masala bi am na ishkaal ndax am na ay lënt lënt yu ci ay nit indi ñu ci ëpp ay xawaarij lañ ak ay mu'tazila waye seen wax yoy deesu ko intibar ci fiqh ndax chak bi indi dinaa ci ñëw ci kanam insha allah tabaarak wa taala ndax laaye ji ñëw ci loola xatta yatawaffahunna maut aw yajal allah lahunna sabila dañ ko folli yonente bi alei salaam moo folli ci waxam ju tedd jam waxon ni ala qad jaala allah lahunna sabila al bikru bil bikri jaldu miatin wa taxribu aamin wa saybu bi sayibi arrajmu xatta almawt mu ni yàlla defal na leen aw yoon kon aaya bi folli nañ ko ab jànq akub jànq bu njaaloo dañ leen door téeméeri yar beneen riwaaya bu mu indi téeméeri yar ak génne leen ci dëkk bi wala tëj leen ko su am at bu fekkee ñaar ñu mësa ñu ixsaan la sangawu su boobaa kon arrajmu xatta al mawt dañ leen di sànni ay xeer ba keroog ñuy faatu al imam ibnu xazm al astaxfirullah al imam ibnu xudaamata rahimahullah nee na boroom xam-xami lamsaar yépp dëppoo nañ ci ni lii mooy li nga xam te ni moom la moo mujjee sax ci njàngalem yonente bi alayhi salaatu wasalaam moo mujjee sax ci njàngalem yonente bi alayhi bi abi wa ummi afdalu salaati wa atamu taslim bu fekkee nag aaya bi suñ boroom wax ni azaniyatu wa zani fajlidu kulla waxidin minhuma miata jalda wala taaxudkum bihima rafatun fi diinillahi in kuntum tuminuuna billahi mi yawmil axir ci surat nuur laaya jooju waxtaanut ci koo xamante ne nii ku sengaw la laaya ji waxtaanut ci ku sengaw ci ki muy waxtaan mooy koo xam ne dafa njaaloo ba pare nekk ab jànq moo xam jànq bu góor la wala mu nekk jànq bu jigéen laay ji ñooñu lay waxtaan laay ji ci ñooñu lay waxtaan waaye waxtaanu ci koo xam te nii dafa njaaloo ba pare fekk amoon na soxna ci fas bu wér li koy gën a mooy yàlla wax na ci biir aaya boobu ni fa i ci surat nisaa ni fa ida oxsinna fa in atayna bi faaxishatin fa alayhinna nisfu ma ala almuxsanaati min al na bu fekkee bu fekkee ñi njaaloo ca sengow dañuy ay jaam dañuy ay jaam nee na su boobaa nañ leen dóor juróom fukki yar waaye buñ leen dóor téeméeri yar kon ñi bëgg a tefeeloo ci aaya bi ni fa ida na mooy buñ sengowoo fa in atene bi fahishatin fa alayhim nisful masanaat bëgg a indi tax ñu rey nit aaya dañ ko déggut fa ida oxsin na firiwul buñ sengowoo waaye fa ida tazawaj na buñ amee jëkkër fa alayhinna na ma alal muhsanaati ay alxarair noonu la indi abbas firee su boobaa nañ leen dóor xaaju li ñuy dóor gor ñi muy tansiif muy juróom fukki yar te ku ne xam na ni loolu ar rajmu la yatanassaf maam jam mënuñ ko defu xaaj ndax moom dee mooy résultat ba rajmu xatal matu la yéen wax kon dee mooy résultat ba moo tax آه، عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ولا رضي الله عنه دفا وحني يلا دفا يوني يا نبي عليه السلام تي اك دغ ان الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وانزل عليه الكتاب فكان مما انزل الله ايه الرجم فقراناها وعقلناها ووعيناها يعني يلا دفا واتي القران بوكنا تي لي واتي نك سور ايه ايه ايه الرجم ñu jàng ko xam ko mokkal ko dégg ko gis yonente bi alayhi salaam mu def ko ñun tamit ñu def ko ginnaawam muy nag ragal naa ni buñ demee ba jëmmi jamono da ngeen gis kuy wax naan aayatu raj mu day gis nañ ko di ci jéem a réer di ci jéem a tëttaloo ci aayab ida oxsin na di koy jéem boole di ko jéem di ci jéem a mu ni nag raj mu moom ci téere bi yàlla bi lu war la ci ku njaaloo koo xam te ni góor la moo xam jigéen la su fekkee tegtal am na ci moom xadis bi ma la wax euh, te tegtal mooy alxabal awil i'tiraaf mooy ñu gis ci moom ëmb te fekk amul jëkkër wala moom mu ñëw reconnaître comme ni nga xam te ni sax na ci yenn yoo xam ñoo xam dañoo ñëw reconnaître mu mu mu raj mu leen kon lii dafa leer nañ ni kon kon ku njaaloo te fekk sëngawu woon nga al raj mu xattal mawtu rek mooy jam la ba nga dee mooy atte bi yonente bi alislaam def na ko saxaaba yi def ko ba tey ci umma islamiya réew yi atte islam ñu ngi koy def boo demee Saoudia da nga koo fekk boo demee Iran da nga koo fekk tamit kon loolu leer la laay ji ma waxoon sànq nag wax naa la ko sànq nee naa la wallaati yatina alfahishata min nisaikum fastashhidu alayhinna arbaatan minkum فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا سبيل بابو لا يندر عيسى وحنا ليرا لما سانق وهي أمر دي تمت ليرا لما فليغني تآية النور تمت ليرا لما آه، يندر عيسى ما وحل خذوا عني خذوا عني ألا قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جل مئة ونفي سنة وسيب بسيب جلد مئة والرجم ci beneen riwaay mooy ma rajmu xatal mawt bii riwaayatu muslim la kon ñi def euh, imma ñu jël sóor aayatu suuratu nuur bii wàcce ko ci ki njaaloo te sengo wut wala ñu ni aaya bi kat am la waaye man suuxala ñaar yooyu rek maa nekk aayatu nuur da naan mooy ki njaaloo te sengo wut moom la aayatu nuur indi wala nga ni aaya bi dañ koo folli maanaam ki njaaloo te sëngawut moom la ayat nuur di waxal xusuusan kooku rek lay waxal waaye yonente bi leeral na nag ki njaaloo te sëngaw nag leeral na attee mooy xadisu muslim bi ma wax léegi wala boog nga ni aaya bi dañ koo folli bu dee ci ku moxsin dañ koo folli imma folli nañ ko ci xadis mu leer nañ ni wala ci aaya bi nga xam te moom laa tuddoon sànq ci ci Omar mu nettali ko moo tax waxoon naa sànq ni la Ibnu Xudaama ibnu xudaama moo waxoon ni boo dem umma bépp dëppoo nañ ci loolu boo demee ci almuxni da nga ko fekk kon nasxu beet nasxu bi li gën a wér mooy taxsiis la taxsiis la maam xadis bi dafa taxsiis aaya bi waaye nasxu wu ko loolu moo gën a wér ci waxi borom xam-xam yi mooy comme ni ko Omar waxee Abdullah ibn Abi Awfa nag ishkaal bi am ci xadisam muy biñ ko laajee ni ko ndax yonent bi ay mës naa jam nit ba mu dee ci njaaloo ca sangaw muy waaw ñu ni ko ndax ginnaaw sóoratu nuur la wala avant sóoratu nuur muy ma xadis boobu kenn mënu cee sukkandiku ndax raj mu wàccut ginnaaw ayatu nuur raj moom tabbiwut ginnaaw ayatu nuur raj dañ ko indi ci amumu zunaat ci ñu njaaloo lañ ko indi ndax inna bi aw fa moom daa xamul rek la wax waaye daqut saxarut dàqut saxarut te sax na ni raj mu muy jam bam faatu am na ginnaaw sóoratu nóor maam ñi ñi astafurlaa ñi jàpp ni maam raj mu amul ginnaaw sóoratu nóor dañoo xamul li xew waaye am na ginnaaw sóoratu nóor ndax eh, aayatu nóor bi mi ngi wàcc ginnaaw xaadisatul ifk aayatu nóor bi mi ngi ci ginnaaw xaadisatul ifk xam ngeen inna leen si jaaw ba ifk ci la ñoo ñëwaale te Abu Hurayra ginnaaw ifk la tuub te Abu Hurayra fekke na fu ñu doon jëme ndax moom mooy nett li mu ni am na ku ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam teg ko ci jàkk ji daal ko wooy ko yaa rasulallah inni zanaytu yow yonente bi yàlla man damaa njaaloo nee na yonente bi wëlbatiku wan ko ginnaaw nee na ba mu wax ko ñeenti yoon nee na ba mu seedalee ñeenti yoon seedal boo xam ñeenti yoon yonente bi saa mu woo ko ni ko ndax da dof muñ ko dofuma mu ko ko fahal ahsanta ndax sengaw nga mu ni ko waaw mu ni ko mu ni saxaaba yi izhabu bihi farjumahu dem leen ngeen raj ma ko ngeen rey ko raj ma xatal mawt sànni koy xeer ba mu dee xadis boobu mi ngi ci Buxaari ak Muslim kon lii gën a firndeel ni kon raj mu ku xaw xas ihsaan dañ lay jam ba nga dee mooy xadis bii ndax xam ngeen ni Abu rek ginnaaw biñ tuumaalee Sayyidatna Aïcha ci la tuub bi ñuy tuumaal Sayyidatuna Aïcha moom fekkewu ko boobu nekkagul ab julit ginnaaw bi la tuub te bi mu tuubee moo soloo xadis bi xadisu rajm kon kay dañuy jàpp ne xadisu rajm moom moo mujj moo mujj xadis bi nga xam moo mujj aaya bi nga xam te moo wàcc fee kon aaya xadisu rajm bi dafa taxsiis aaya bi ñëwoon ci boole lële bu fekkee da ngeen bu fekkee da ngeen cee bëgg a dugal moxsen bi bu donte moxsen bi a dugal ndax fee fa muy waxee mooy ñi njaaloo ci sangow wuñ ñi njaaloo nag moom xadis bi ko indi waaye bu fekkee da ngeen ne ñi njaaloo ci sangow tamit ci lañ bokk su boobaa xadis abu hurayra bi moo mujj suur moo mujj ayatul hadithul ifk kon loolu leer na moo tax alxaafis ibnu xajar sax tetal indi na ci ci ci ci alfatxa ci fatxul baari yi indi na ci wax ju leer nañ nii mu ni li xewoon mu ni bi yonente bi raj mu woon ginnaaw sóoratu la am ndax sóoratu nuur xaadisatul ifki ci lañ ko xam te nee na loola ñuy werante ndax atum ñeenteel la wala atum juróomeel wala atum juróom-benneel taraj ma moom ku ne xam na ni ginnaaw atum juróom-benneel la am far ndax Abu Hurayra fekke na ko te Abu Hurayra atum la tuub loolu leer na kon te Ibnu Abbas mii bi muy ànd yaayam di ñëw Madina atum juróom-ñeenteel la te moom it nett na nee na ginnaaw bi ma àndee sama yaay ñëw Madina ci la yente bi raj ma kon kay loolu yaakaar naa amatul iskaal amma waxi Ibnu Abi Awfa ji wax ni laa adri nag saxaaba kay mën naa bañ a xam saxaaba yi bu fekkoon xam nañ lépp kon du jar alayhi salaam alayhi salaam maam di fi nekk di di di jàngale ndax kon daan leen xam ngeen rek yéen kon waaye ibnu abi awfa daa xamut comme ni nga xamante ni lu ëpp ci saxaaba yi am na loo xamuñ ko Aïcha nee ku leen wax ni yonent bi alayhi salaam taxaw na di tuur ndox ngeen baal ma ci waxin wi nee leen ko fenal na yàllaa ko yonenteem wala boobu naral na yàllaa ko yonenteem te pourtant am na saxaaba yoo xam gis nañ loolu ci yonent bi alayhi salaam kon ab saxaabi kon qad taxfa alayhi umurun man naa am yoo xam te ne du ko xam moo tax ibn abi faa mu wax ni xaw ma xaw ma googu mu wax nag du ayib ci moom waaye daqut saxarut kon daa maandu moo tax mu wax loolu kon daa maandu moo tax mu wax loolu bu fekkee soxla ngeen ci yeneen adilla incha allah ma indiwaat ko wallahu taala alam bi sawaab wa wali tawfiq taala sëñ xaadim audio bi moom da nga ko waroon def ñaar wala ñett parce que dafa gudd wante nag incha allah dinañ ko déglu mën naa am def ci commentaire Eh, wala laaj beneen laaj judduwaat ci waaye nag laaj bi nga xam ne moom li ñu waroon a séq yow nga xam ne doo fi bàyyi benn laaj bi ci des mooy ne eh, kër sëñ Touba yi nekk foofu rawat na yow bi nga eh, jiite muy bi nekk New York il paraît ban rôle lañuy ñuy suyee ci wàllu tasaare diine islam ak lii di liggéeyu sëñ bi ban rôle nga la ci la ciy taxaw moom kër sëñ Touba yooyu. waaw kay sëriñ Pape dëgg la waaw na buñ toppee commentaire yi mën naa gën a gudd sax waaye ala kulli hal ñoom xalaaf ak ñoom borom xam-xam yooyu nga fi tudd ay borom xam-xam lañ rawatina Azarqa moom faqih la dëgg rahimahullah waaye damay respecté seen gis-gis waaye duma ci ànd ak ñoom duma ci ànd ak ñoom ndax li usul yu ni tëral tam gën a wér mooy. حديث دنا فولي القران الكريم ناخ لا تخ مو يونت بي عليه السلام مكو تيتال ناخ مو هني اوتيت القران ومثله معه جوخنا ما القران جوخ ما لو تولوك موم سي درجه موتاخ ني فرقي فرق يي فرق القران الحديث حديث القران تعبدنا بلفظه تحديث ما تعبدنا بلفظه alxuraan dañ koy jàng rek mu nekk tuyaaba même buñ xamul lu muy wax te xadis moom euh, boo xëyoon jàngoo ko sax kenn du la ayibal te alxuraan moom ko du jàng dees na la ayibal ndax ak jaamu yàlla la waaye ala euh, na ci yiñ dëppoo ñoom ñaar muy alquran ak sunna danga mënut ni benn ñaari benn waaye kon ñaari benn ngay wax ndax ñoom ñaar ci tashrian ñoo bokk benn daraja ndax amna ahkam yo xamanteni alquran tashri'a ko hadith ma wa tashri'a bi ni ma lay wax ci la bok xam nga li yonente bi wax dafa dafa leer bu fekkon yante bi da ko taxsis ci qadi rek danaan lil qadi qadi bi manna manna mën rajmu bu ko nexe manna baña bañ a rajmu waaye dafa wax rek umuman te dañuy wax ci usul ni tarku istifsal fi maqaami al ihtimal yunazalu manzilata al umumi fi al maqal mo tax ñu ni kon gëna yonente bi sam salaam xamoon na priorité qadi te teewul mo ni السيب بالسيب آه، الرجم حتى الموت تفلير نص صريح في محل الخلاف نص صريح في محل الخلاف كون كو بغن تخصيص لنكو تخصيص القاضي بي دا ورا ان دليل بي وين يكون قاضي بي رك موكو من تيانت بي رجمنا عمر رجمنا تي صحابه رجمنا غيناوام تباتاي نيغي رجم تاميت تي نيوم سين خلاف بو خلاف دنجي ووتي اك مذاهب الاربعه أنت وتا المذاهب الأربعة وأنت إشهاد لجنهم وإذا ما جاب إشهاد خاطئ لهم ثواب وأجر وأنك للمذاهب الأربعة ولا لأصحاب المذاهب الأربعة أجران وثوابان إن شاء الله تبارك وتعالى ما يجيك بيجي أراب لك لأي مسائل يوخم تنمي برمود لير دق دق دوكو منا دنكو منا وحشي أراب مغنى لير waaye li ma bëgg a wax daal mooy ñi bëgg wax ni eh, ku njaaloo te fekk da ngaa amoon soxna su wér ba jaxasoog moom kenn warulaa rey wala da nga ko war a def ay yoon wala yu mel noonu kooku moom wala ñu bëgg koo delloo ci xaadi bi kooku dalil la boo xam waahin amut amut amut wala boog masala ra'i la boo xam waahin la amut amut dalil saraxatan amut dalil te ku jàpp ni am na dalil tamit ah mën nañoo jël waxtu ñu waxtaan ci ci xam-xam génneel génneel ci lislaam wax kenn ku nekk delluwaat ci li nga xam te ni mooy dëgg ak li nga xam te ni moo sax ci sunna si yonente bi alayhi salaatu wasalaam ak ci kitaabullahi subhanahu wa taala li may dénk nag ñi nga xam te ñoo dem màggal mooy eh, ragal yàlla d'abord ragal yàlla rawatina góor ñi ak jigéen ñi waxambaane yi ñoo xam ne Touba nekkut barab boo xam ne dañ fay joxante rendez-vous ngir eh, ittixaasu ak daan ngir eh, farantu wala yu mel noonu comme ni ko ñenn ñi defee loolu moom wuute na ak lool li taxoon sëriñ bi sos dëkk bi wuute na tamit lool li taxoon sëriñ bi woote ci dëkk bi ni ki noonu it ñu bàyyi xel ni barabu barkeelu la barabu barkeelu la waaye du barabu bokkaale yàlla borom bi subhaanahu wa taala barabu barkeelu la waaye du barabu bokkaale yàlla yàlla mooy yàlla sëriñ bi mooy sëriñ bi sëriñ bi moo tuddee boppam al abdul xadim abdullahi wa xadimu rasulihi yàlla moo man moo kattan sëriñ bi nag barkeem moom yàlla def na mën na lu nekk waaye nag booy ñaan ñaanal borom bi subhaanahu wa taala ci barkeb sëriñ bi loolu lay dénk mbokk yi di leen dénk tamit jaxasoo góor ak jigéen ñi ñu moytu ko bu baax a baax rawatina dem siyaare ji armeel donte siyaare ji armeel bokk naa ci ñu gis ni dafa dagan la jàpp waaye nag ci jigéen waaye nag mu bàyyi xel bu baax a baax na muy solo ak na mi bindoo ak parfum ba muy laala yooyu yëpp mu bàyyi xel xam ni lislaam mayu ko loolu ni ki noonu it ñu bàyyi xel ni euh, coronavirus bi dugg si di am mbas am mbas moom ginnaaw mënuñoo ñàkk màggal màggal gi ndax ndigal la te murit moom ndigal lay jëfee kon ñu def ko ci wattu barrière eh, yi nga xam ne médecin yi moom la jox ñu bay xel ci buñ mayee sorente bi buñ fonk masque yi ak eh, raxasu bi ak eh, antiseptique yi ñuy def ci loxo yi yooyu yëpp daal ñu bàyyi xel ku ci mën a ami gan tamit boole ko ci yooyu yëpp ñu bàyyi xel bu baax a baax te ku ci amub seriñ tamit bu fekkee mënu ko ñàkk a boo demee rek nga nuyu ko te bañ a joxe loxo te xam ni barke bi moom albarakatu lil mutabarrikin képp ku yéenee barkeelu rek am nga barke booba loolu daal lay dénk mbokk yi eh, bisimilahi rahmaan rahim sëriñ Pap waaw maa ngi koy jéggulu xam naa ne kon mayegoon noonu laa koy def waaye bii nii bu naree gudd def ko noonu incha allah waaw kër sëñ Tuubaa yi de moom xam nga cheikh mouhamadul murtada rahmatullahi alayhi wa xafida najlahul karim sëriñ Mamoor Mbàkke eh, dafa teel a am vision kani sëñ Tuubaa fi ardihim dafa teel a xam ni loola kon mënta ñàkk ci addaawal xadimiya wala addaawal islamiya muy appel islamique bi nga xam te ni mom la Sëñ Tuubaa waxoon ni da ci yeesal diine eh, ba mu waxee ahla barri tamit yaa ahla baxri unjuli barri baxri saxaay eh, dafa teel a yewwu ci loolu xëy na ñaan ga eh, Sëriñ Tuubaa ñaanoon tawassuloon ko ci yonent bi alayhi salaam Eh, yaa waasian wasiatali bil murtada eh, ñaan googu moo nangoo ci moom tax mu taxaw ci bitim réew ci def fi yu mel nii ay kër ñun sax dañ koy woowee kër sëñ Tuubaa yi comme ni nga ko waxe waaye moom daawud nangu loolu da daa wax ne nañ ko woowee kërul islaam nañ ko woowee kërul islaam loola it eh, sëñ Abdul Aziz al def ci lu am solo bi mu fi ñëwee fii la njëkk a am na yoon bu mu fi ñëw boo xam fii la njëkk a wàcc ci kër Sëñ gi ngir wane rek ni lépp benn la kërul islam googu nag te am ci New York am fu bari ci état yi mën naa ni états yi day boo ci doon wàññi lu mu gàtt gàtt dana am vingt cinq wala trente yoo xam te nii kër Sëñ Tuubaa am na ko boo demee Washington fekk ko fa boo demee Seattle fekk ko fa boo demee Atlanta fekk ko fa boo demee Philadelphie astaghfirullah boo demee New Jersey fekk ko fa boo demee Baltimore fekk ko fa boo demee Raleigh North Carolina fekk ko fa boo demee Charlotte North Carolina fekk ko fa boo demee South Carolina fekk ko fa boo demee Virginia fekk ko fa boo demee Norfolk fekk ko fa boo demee California fekk ko fa boo demee Las Vegas fekk ko fa maanaam daal su ma doon lim tey mën naa fi yàgg lool ci audio bi mu gudd te du ma jeexal ci kër fi mu am. waaye gi ci njëkk nag nga xam te ni Cheikh Mouhamadou Moutada moo ko jënd ci xaalisu boppam ci jamono yooyu mu joxe cinquante cinq mille dollars cinquante cinq mille dollars yaakaar naa boo ko doon ma jamono jiñ toll nii dana mat trois cent millions CFA bala boog astafurlah dana mat euh, trois cent mille dollars te bu boobaa daanaka day jige xaaju milliard na ko jige tuuti mooy dindil ko boppam ci xaalisu boppam joxe ko taalibe yi dolli ca ñu jënd kër gi dañ koy jënd cash kër gi dañ ko jënd cash boobu ak léegi mën na fa wéeri at wala boog jigéen na ko euh, kër gi nekk symbole parce que fi ñu ko jëndee ci digg Harlem la digg Harlem te Harlem ku ne xam na ni euh, ab quartier la boo xam te ni quartier bu bari woon bu bari woon crime la crime yi dafa bari woon lool doo daawoo xëy mukk suba ba ngoon te déggoo lu mat ñaar ñu ñu rey wala ñett wala juróom ñoo xam ne da di xam ñu rey leen na ñu bari ñoo xam feeñ faatoo euh, mu ñëw jënd ko foofa bi mu ko fi jëndee ñu jàmbat ko ni ko li fi xew de moo doy waar lool mu ni dee leen jàng alquran rek saxal leen saa yu ngeen jullee ajuma ngeen jàng ñaari kaamil benn kaamil bi ngeen yéene ci seen bopp beneen bi ngeen yéene ci dëkk bi waxuma la yéen de waaye da ngeen dem ba fii incha allahu jàmm rek xew loolu nag karaama ci ay karaamaam tey jii Harlem bokk na ci dëkk yi ëpp sécurité bokk na ci fi dëkk ëpp sécurité ci New York. bu dee daawa bi tamit wax dëgg yàlla man naa ni markaz bi euh, markaz la boo xam te ni stratégie yan fi mu nekk moo baax ndax nekk Amérique nekk ci capital ba di Big Apple comme ni ko américains yi waxee. nekk biir Harlem ba pare ñu fay noddu di fa julli di fa jaamu yàlla américains yi di ñëw jàkka ji amul sénégalais amul guinéen amul gambien amul keneen keneen amul américain amul wolof amul pël amul naar ñëppay julli si mu nekk jàkka ju mag dañuy julli ba nit ñi dañuy toog ci mbedd mi ba jamono ji sax ñu ngi koy defaraat ngir gën koo mën a yaatal man rek man na nit ma fi ñëwé ak légui xeyna 2013 la ñëw Amérique waye 2014 wala 15 fin 2014 la ñëw fi nek imam ratib bi ba tay ni may wax ak yéen yàlla def na lima fi tuubal ci ay nit mat nañ 25 personnes walillahi alhamdu wal minna kon yaakaar naa daawa bi avancé na fi lool te man maa fi mujj ñi fi nekkoon Serigne Bachirou Lo xafidahu wa raxahu mi imaamu masalikul jinaan nekkoon na fi ak ku ñuy wax imam Daabo nga xam te ni moom euh, sëñ Murtada moo ko tuubal yóbbu ko Égypte mu jàng ba am xam-xam mu indi ko fii mu nekkoon fi imaam tey mi ngi loolu yaakaar naa effort bu rëy ci lu mel noonu euh, sëñ Murtada Kan nekkoon fi tamit nekk fi imam di jàngale tey jii ma fi nekk man maa fi nekk en tant que ratib ku ñu wax sëriñ Aliou Mbacke topp ci ku ñu wax Moustapha Diop topp ci suñ Moustapha Diop ku ñuy wax euh, Abdou Samane Mbaye tamit di fi jiite léeg topp ci dem na sax ba jur yeneen centre ndax jur na beneen bu ñuy wax soppee Cheikhul Khadim jur beneen bu wax naylul naylul maraam ci ren ji lañ ko ubbi sëñ Abdou Samane Mbaye moom moo ko ubbi lépp di ay jàkka yoo xam te ne ay jàkka yi euh, mën naa ni jàkka yi sëñ Tuubaa la waaye jàkka yi lislaam la yoo xam ne bii moo leen jur kon yaakaar naa appel islamique bi ngi avancé bu baax a baax ndax mën na ni ci Amérique kër guñ jënd cash ba mat sëkk ku ne xam na jafe gi mu fi jafe jënd cash kër ba mat sëkk te jaaroo ci banque leboo ndax suñu motulaa dafay ne waxoon ni bu leen leb ci banque jënd leen ko ba mat sëkk yaakaar naa kër gi rek la fi kon daxawa bi mu ngi fi avancé bu baax a baax suñu laa nag moo ko fonde ndax bi mu ñëwee dafa waxoon ni na ngeen jël balloo ji balloo ji africain américain la boo xam te ni dafa tuuboon dugg ci lislaam nekkoon ak ñoom Malcolm X xamante ñoom Mohamed Ali ak Alaaji Mohamed ñoom ñëpp mu dund seen histoire dund ak ñoom euh, suñu jël ko jox ko mu jiite daayira bi en tant que américain ngir bëgg daxaw gën a gën a gën a ba tey ak njabootam ñu ci biir daayira bi yëpp donte xëy na wàññeeku na bu baax baax waaye fan yi yëpp ñu ngi liggéey ci loolu te nan la ñuy def ba américain a liggéey bi ndax leen tax a dugg naa ñu ci bari mooy langue wolof bi nga ne moom la ñuy langue moom la ñuy wax moom la ñuy jëf jëfandikoo loolu rek mooy xaw a kii waaye daal daxaw bi moom wax dëgg yàlla mi ngi jolli mi ngi jëm kanam mi ngi avancé bu baax a baax a baax walillahi alhamdu wal minna ma ñu ngi jumaa ji rolam weesu def ay xutba ak jàngale kuy tuub ñu indi ko mu tuub léeg nga dem ci euh, cérémonie yi nga xam te ñoom ñoo koy taxawal léeg-léeg nga am ci ay xarit seeti leen léeg nga dem di waxtaan ñoom léeg-léeg nga gis ñoo xam te ne na dañuy bëgg am jàmm nga xamal leen ni lislaam mooy jàmm xamal leen tamit yu baree bari ba tax na sa meeru Harlem bi mus naa laaj ni waaye yéen li ngeen def culture ñàkk a fayantoo bi ngeen def nga xam ne liggéey ak jaamu yàlla rek ngeen def worship and work hard working and worship mooy seen liggéey daanaka yéen liggéey ak jaamu yàlla fu ngeen toll yéen a ngi liggéey fu ngeen jëlee loolu ñu ko loolu sëñ Tuubaa moo ñu ko jàngal al al xidmatu wal amalu wal wal ilmu waaw liggéey ak jaamu yàlla al xidmatu wal ibada mu ni waa léegi culture baale boobu ngeen am ba ku leen ngeen baal ko mbaa benn xalifa du ñëw benn bis daal ni dindi naa ko ñu ko déedéet parce que mbind yi ko Sëñ Tuubaa jàngalee day mbind yu sàkkar yoo xam dañ koy topp ba tey moo tax nga xam ne ñoom seen bopp damañ ba seetlu ni maanaam mouridisme eh, li ko bokk na ci li koy gën a avancé ci Amérique ak ci extérieur mooy culture baale ak jaxasoo ak joxew ñam ak bëggante ci seen biir ak liggéey ak jaamu yàlla loolu daal mooy li nga xam te ni foofu la daawa bi toll ci jamono yi ñu nekk nii Serigne Pape macha allah jërëjëf euh, sëñ xaadim macha allah waxtaan wi am na solo ñu sant bu baax di la gërëm ci tont yu am solo yi macha allah li aju ci wàllu rajm bi euh, wax nga ko aaya boobu di wax xataa yatawafahum xataa yatawafahumul mawt nañ leen bàyyi ci kër yi bu njaalo ba ba dee ñëw wala yàlla utal leen benn yoon euh, ñëw na ci addis comme ni nga ko junjee noonu sabbil am na mooy ne albikru bil bikri jaldu mi atin wa taxrib wa saybu bi saybi e, raj jaldu mi atin wa rajm waaye am na ci yeneen mazhab yi ñoo xam ne taxrib amut noonu la amee ci mufakkiri ni ñu gis ne rajmu it amut ku mel ni Cheikh Saltut Abdul Wahab Xalaaf ñu xam ne ay masaayix Azhar lañ ak docteur Moustapha Zarqa mayem ci ñoom ñooñu rek ñoom dañoo gis ne mu Euh, ci xaat yi lañ ko aj maanaam mu ngi mel ni taxrib rek ñu jël la génnee la dëkk ba lu mat at mi ngi aju ci décision wu xaadi bi ba ko gisee ne jar na ko ñu def ko ki nga xam ne it dafa njaaloo pour ñoom ñu dóoru ko donte dafa sangewu mu defaat ko ñu gis na kii kat dafa féeterlu xaadi mën na jël décision pour ñu def ko raj mu ñoom nañ leen gisee raj mu ñoom tamit waaye nekkul atte boo xam ne bu sax la euh, ci alquran ndax alquran kat aaya yi wàcc yépp moom aaya eh, eh, loolu la wax ñi koy wax nag dañ koo folli nag jàngoon nañ ci usool ak lu muntu demee mooy ne ijma wala ijma wala xiyaas munta folli nas addis bu wér waxuma laa alquran addis it munta fir nasu alquran bu wér bon eh, ñiy wax taxsis na ko aaya bi moo ko moo ko euh, addis moo ko moo ko folli addis yi amul daraja euh, tawaatur yi nga xam ne moo ci wàcc ba mën a ba mën a euh, folli li nga xam ne mooy aayatu boobu ci sóoratu Nuur boroom xam-xam yi am na ñu gisee noonu ala kulli ñu ngi lay sant bu baax a baax a baax macha allah waxtaan wi dal na ànd naag leer waaw ànd naag leer ànd naag xam-xam ànd naag girinta ñu de euh, sant bu baax nag euh, macha allah suñu dernier laaj rek. mi ngi noonu bu bu bu bu koor ñëwee euh, mën naa ni ci jàkka yi Sénégal yi fi nekk daanaka ñooy sël jàkka wala boo boo xam te ni mi ngi fi nekk di naafila kaamilu alquran ba mu jeex min al baqarati ila min al jinnati wan naas ñoo ko fi am ñoo ko fi def loolu nag ko amaa bi nga xamante ne bëgg xaddis rek. Euh, bu koor gi jotee man ak signal yu Mbàkke ñooy taxawee naafila gi ak xale yi nga xam ni fii lañ mokkale ñu ci ëpp sëñ Abdou moom moo leen mokkalal ak sëñ Murtala leen ba bañ bañ sori woon jàng mi lool fii lañ mokkalal xaan nekk ñoo xam fii lañ juddoo yor culture américain xam lépp ba pare tamit jàpp diine ji mokkal bay jàng xiraat ay xale yoo xam te ni macha allah ñu yàlla dimbali lañ ñooñu la ñuy àndal naafila gi at yi yëpp ren rek lañ ko defoon ndax coronavirus bi moo ko waraloon waaye daal ñu ngi fiy naafile ñu ngi fiy def ay ndogu ci koor gi ñu ngi eh, julli ajjuma ñu ngi julli waxtu yu juróom yooyu yëpp tamit man mi maa ko maa ko féetewoo maay julli waxtu yu juróom eh, ajjuma yi tamit ma fi nekkee maay jiite léeg-léeg rek kenn ci ay may tamit daal di ñëw ñu seq ko kenn ku nekk jiite ala kulli xaal lii daal moo fi nekk rolu imaamu ratib bi tamit muy man loolu lañ fi nekke muy jéem a jàngale jàngaleem ak di jaamu yàlla ak di taxawal julli juróom ak di taxawal julli iid yi eh, iid gi daanaka mën naa ni eh, léeg-léeg sa ñaari julli la ñuy def ndax feesaay bu muy fees ñëpp fi la ñuy julli see daanaka léegi sax eh, ci mbedd mi lañuy jullee léegi ndax xajatuñ ci biir kër yi bu kër gi pare tamit dinañ continuer di julli ci biir kër gi nit ñi tamit di dem ba ci mbedd mi dem nañ ba autorisé ñu sax léegi ni ñu mën ngeen di jullee ci mbedd mi comme ni nga xam te ne Bamba Day bi tamit bu ñëwee ñun ñëpp dañuy jógee one sixteen cent dem ba 125 di dox di tuddu yàlla di wax la ilaha illa muhammad rasulullah bu nee def suñuy discours waxtaan jàngalaat américain yi xamal lan moy l'islam ak lan moy wote sëriñ